Elas Diop Elas Diop mais jëli oto ñoo ay oto ñoo koy jëlee fële fële fële Boroso di ko indi fii di ko transporté waat ñun ñu koy jël di ko yóbbuwaat ci àll bi dem di ko jaay waat quoi waaw dañuy tourné rek des fois di ñu chargé dem àll ba des fois ñu chargé jaay ci fii ci Njaareem ci marché Sénégal yi rek daal waaw loolu daal lañ nekk nii quoi waaw liggéey bi de moom da ngay xool li la xamante ni moom moo jël jël yi nga mën a liggéey li sa marché attan nga jël ko nga xol li sa marché attan nga jël ko dem jaay waat quoi waaw jën bi ñu indi tey ñu ngi koy woowee gis bi lañ koy gis waaw gis lañ koy woowee waaw. waaw ci géeju Sénégal moom waaw mi ngi jóge fii ba Rosso Mauritanie lay jógee oto yi Marocain yi di ko ko indiwaat fii Gaza di ko indiwaat fii Sénégal bu ko defee ñun ñu ko jëlaat quoi parce que géeju Sénégal moom amatu fi moom daanaka waaw moo tax ñuy gis nga oto bu demee bay taxaw oto di ko yekkalewaat oto oto jëlaat ci oto dem di yóbbuwaat di jaay moom xamul koo moom waaw njëg bi bu dee jën bi dañ koy bu dee jën bi dañ koy compter quoi waaw bu dee bi comme nii ni nga gis nii nii dañ koy compter nii par kees fi ne naat bi ñu koy jaay nii mais dañ koy compter par kees ñun bu defee koy compter waat par benn benn di ko jaay quoi jën jën bu nekk non par par par benn la ñuy compter benn bu ne da lay taxaw ay 800 wala 850 wala 800 boo demee waaw benn jën waaw boo demee nga jéem a dàqaat 200 quoi di ko jaat benn 1000 jéem a dàq 200 yi quoi waaw marché bi daal moom lu dul naqar yi ak salte ak bon daal moo nekk ci marché bi marché bi moom dara ba amuñu marché daal moom Jurbel ñun waa Jurbel daal moom li ñuy jooy daal mooy marché quoi marché bu baax daal lañu amul quoi dëgg yàlla ñu méttee méttee jafe-jafe yi moom foo ko takk weesu na parce que ñun jaay ko jënd joxuñu ñu cër quoi xaw na métti trop trop trop trop na ba nga jot métti na bala nga koy jaay dina métti waaw métti na trop amuñu marché bu baax amuñu taxawaay ko baax jëni li nga ko jëni amatul ci géej gi seer na trop trop trop trop mais dugg nañ si ba pare mooy suñu métier xamoon nu ñuy def mënuñu ko bàyyi moo tax parce que nit ki ne ak li mu tàmm quoi pour mu bàyyi ko problème la quoi daal métti na foo takkay liggéey jëm daal foo ko takk weesu waaw métti métti na daal ñun waa Diourbel la li ñu bëgg ñu daal mooy ci ñu wax président Macky Sall mu dimbali ñu ci wàllum géej gi kaaraange géej gi ba nga xamante ni daal gaal yi daañu a dem di ko jàppee lañu ko daan jàppee waat su ko defee yii mën a ñàkk waaw parce que oto bu chargé fii ba moto ni ñëw bëgg laa jaayaat yow tamit nga bëggaat si dara demaat si marché jaayaat xam nga yooyu jën a yomb ci yow ah, jafe-jafe kay ci lay jóg ay jafe-jafe kay du ci jëm moo lii tey jafe-jafe kay le temps ñu ci jafe-jafe yi parce que jafe-jafe passé wul tey dem ba ñun waa ñun sénégalais yi mënuñoo am ci am ci jën yi ay bato ñoo jóge fële ñëw di ko yóbbu loolu moom mënut a passé parce que heure bi bu ñuy wax décembre mooy bopp jën heure bi la jën daan am mais tey décembre ci la jën gën a jafe waaw maa lay ñu ngi lay bu baax a baax a baax sëñ bi di kontaan ci affaire bi wax dëgg yàlla bett nga ñu mais affaire bi daal moom kontaan nañ ci trop di wax Jurbel euh, daal moom li ñu suñ problème mooy ñun marché moom mooy suñu problème moom Jurbel marché daal amuñu ko quoi marché waaw marché daal moom marché poisson bu baax moom ñàkk nañ ko trop trop trop fañ jëm daal fay fi foo bu ñëwee woon fii la ñuy jaayee jën da nga naan déedéet du fii la ñuy jaayee te li fay xëy di génne ci ay millions bare na trop trop trop trop trop tous chaque jour chaque jour amul samedi amul dimanche chaque jour parce que ku xam liggéey jën moo xam ne amul samedi amul dimanche chaque jour quoi ñoo ngi ci mais suñu fay dugg suñu oto di yàqu yenn saa yi gis keesu jën ba fa tuuru jën yi yàqu ak jëni seer yi nii métti na quoi pax yi métti na amul marché daal métti na trop trop waaw dañ koy glacé parce yi glace moo koy dundal parce que njaay mi gaawul jën yi dafa cher parce que yaa nii oto bi dañoo jënd ñaari yoon lañ jënd glace oto bi ñëw aleeraat fii ci usine glace bi ñuy wax njaareem jëndaat fi glace di ko glacé en même temps waaw parce que jamono bi dafa tàng quoi boo glacé wul day yàqu jën dafa seer mënoo jënd sa alal bi kii ba pare ngay consommé glace quoi sañoon daal ñu ñu marché jën boo xamante daal daañu fa mën di suturu marché bu baax boo xamante daal bu ko defee daal euh, kaaraange a yokk waaw naa gën a yokk quoi mais amul sécurité si njaareem amul marché amul dara. Ousseynou Kane yow mi nga xam ne seen bi yow yaay président marché bi dimbale ñu ngir yàlla nga jàppale ñu wax ak président mu Malick Fall monsieur le maire mu mu jàppale ñu dimbale ñu ci marché bi son nañ trop. waaw waaw maire moom mi ngi def liggéeyam moom. mais ñu ñi nga xamante ne bi ñoo jiite ñoo jiite liggéey bi yor marché bi ñoom ñoo ci war a jàpp wax ak moom. moom wax dëgg fa yàlla gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax a baax. gis nañ ci suñu bopp mais. am na la nga xamee seen bii moom mënta ñàkk daal ta ñàkk waaw ndax bërëbu liggéeyukaay boo gis ah dañ ko war a defar ba mu civilisé waaw même buñ ko defar mu mu doon sax peron wala ñu defar ko mu naais waa xamee seen bii oto yi dinañ am fu ñuy mën a duggee di am fu ñuy a génnee mais fee dafa xat trop oto dañuy taxaw bay taxaw ci kaw tali bi waaw ni ma ko gisee daal moom mooy marché Ndiarème bi marché bi ma gis ak rek moo ci gën a salté moo ci gën a salté waaw te ñu dëkk di nga xam ne bi moo di mbudaay son son nan trop waaw waaw waaw mais danoo bëgg nga gëstu ñun waa marché mbudaay suñ camion yi amuñu fu ñu taxaw oto yaa ngi dammi laam ñoo ngi paan ilis yaa ngi dammu waaw ndax benn chantier bu fa nekk sax waaw seen suuf sëpp ñoo ko teg ci buntu marché bi benn oto amul fu mu waaw lu toll na marché njaarim am na la nga na ne dafa jékku dafa rafetuwut waaw marché boo fa demee tey suba sax ngay waar ci yàlla waaw mu le maire yow la ñuy. Euh, ñoo ngi lay ñoo ngi lay def waaw. jafe-jafe waaw ndax mën naa ne mënoo liggéey ndax xale yi tuuti waaw ndax marché bi mën naa ne fu waay neex jaar waaw boo fa wàccee guddi mbaam xuux di lekk say jën waaw marché bi ñun daal li fi nekk wax dëgg yàlla moom. Ah, jaaxal nañu trop ñu koy diis nag mu monsieur le mair Malick Fall moom mi nga xam ne gis nañ sa taxawaay ci njaarim nga bëgg nga gën ñoo jàppale comme ni ñu gën a jàppale waaw